jaa ngeen jëf mbokk yi bàyyi xel Feeling Dakar TV ñu ngi nuyu bu baax di am mbégte ci ànd bi ngeen ànd ak suñu ay programme ñu ngi fii nga xamante ne moom mooy euh, Tëngéej rawatina fi nga xamante ne moom mooy euh, Sonadis euh, li li li tax nag tey ñëw fii jël ñi nga xamante ne moom mooy les transporteurs de oto yi nga xamante ni moom mooy oto vert blanc yi nga xamante ni seen njiit maanaam ki nga xamante moom mooy jiite entreprise ni ki nga xamante moom mooy Amady Sy moom bi nga xamante ne moom mooy liggéeyloo ay borom kër ay pere de ay xale ay mag euh, nekk ay chauffeur yoo xamante ne yaakaar naa ni ay nit ñu gëm seen bopp ay xale yu nangoo liggéey lañ waaye kat ñoom seen problème mooy li nga xamante ne moom mooy lii di entreprise boobu nga xam ne moom moo tugg Redap kii ko jiite mooy Amady Sy di leen fay chaque jour deux mille nee nan loolu baaxul ba pare euh, amuñu benn considération amuñu benn yërmande ci li nga xamante ni moom la kii di Amady Sy euh, Amady Sy jiite li nga xamante moom mooy euh, entreprise Redap di leen liggéeyloo ñoom ñi nga xamante moom mooy les pères de famille ku ci feebar kenn la faj ku ci liggéeyul tamit kenn la fay mu ngoon loo xamante ne ay anam yu métti métti métti ñoom ñu koy liggéey fii nga xamante moom mooy ci entreprise euh, REDAP di dal oto yi nga xamante mooy oto kii vert balaa yi ñun ñoon tey nañ ñëw xool li nga xamante moom mooy la situation ñoom les chauffeurs yëkkati ay kàddu yu am solo wax ko ki nga xamante ne moom mooy njiitu euh, transporteur fii ci Sénégal mooy El Hadji Malick mu yegg maa koy yegg ki nga xamante moom mooy le premier ministre Ousmane Sonko mu yegg ci ki nga xamante moom mooy euh, Bassirou Diomaye Diakhar fay boo ñu topp léegi ñu wax leen li nga xam ne moom mooy les euh, travailleurs yi nga xam ne ñoo fi liggéey fii ci entreprise REDAP ci li nga xam ne moom mooy kaddu yu am solo yi nga xamante ñoom tey ñu ngi ko yëkkati euh, du Top moom mooy wax gars yi li nga xam ne moom mooy seen waaw grand ñun dañoo xëy tey am naqar goo xam ne moom daa dal suñu kaw muy suñ benn mbokk chauffeur boo xam ne dafa nekk ak ñun di liggéeyandoo ak ñun léegi mu jotee sunuy patron yi léegi bi ñu jotee ak sunuy patron yi nag ah ñu daal kii ba kilifa bi jox ko otoom ne ko demal nga liggéey léegi nag mu am koo xam ne si ñoom daa ñëw ne ay nit oto bee bu mu génn léegi nag ñooñu bañ ko jëlee nan lañ daaw jël oto bi fekk ko foofu daal di ko humilier nangu li mu yoroon jot nañ koo duma sax nag waaw te loolu moom nekk na loo xam ne. yaa lan lan ci moom. caabi oto bi ak ak ak xaalisam. ak maam affaire de agression daal lay nirool daal loo xamante ne bii teguwut fenn fenn fenn fenn parce que tamit ñun ay ndaw lañ di doog a jublu àdduna mënoon nañoo def comme suñuy morom ni ñuy def di ji songi gaal geeg di mbëkkee ka defi averti yooyu yëpp ñu ji ñun suñuy njaboot ñu ñor ak suñuy waajur kon am na loo xam ne su amee war nañ ko mën a régler en l'amiable sans autant ñuy jima di ñu andil ay complications di ñu jima agressé di ñu dugal ci détails yoo xamante ne bii ñun loolu nekkuñu ci di ñu ñàkkal fayda ci loo xamante ne bii ñoom fi ñu nekk di ay patron ñu tuddee leen ay patron ñun ñi nga xamante ne bii ñoo nekk ci naaj wi ñun ñoo leen def ay patron ñun fa ñoom fa ñu nekk ñun ñoo leen fa teg parce que ñun bu ñu nekku ci naaj ñoom duñ tala nekk ci kër kon am na loo xam ne bu amee ñoom war na ñoo mën a respecté jox ñu suñu cër ak suñu gëdd respecté ñu xam ñun la parce que ñun ay chauffeur lañ te métier mi ñu yor métier mu noble cité lañ yor moo xamante bi ñëpp war nañ ci mën a gis seen bopp chaque oto yi dañuy liggéey soixante mille par jour ci loo xamante bi chauffeur bi deux mille francs presque ci loo xamante ne bii war nañ mën a respecté xam ñun ñun la ñan war ñoo mën a fay salaire bu baax boo xamante bii ay le 10 le 15 la ñuy fay te loolu ñaaw na ñaaw na ba fa kanam yàlla safar yëpp ñaawlu nañ ko wasalaam. asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ bi ñu ngi leen wax agression bi moo ñu tax taxaw fii parce que ñun ay borom ay kilifa lañu ay borom jaboot lañu ay borom jaboot lañu ay borom jaboot lañu ay responsable lañu dañuy dawal oto depuis 6 heures du matin ba 21 heures. kenn ku ne li nga am nga dem verser ji ko mais réalité a nekk lu ñuy fay deux mille deux cent cinquante la ñuy fay ci journée bi boo jour boo liggéewul du ñu la fay am na ñu nga xamante am nañ dix ans ci entreprise bi parce que état waxoon na normal boo amee deux ans rek war nañu la defar benn contrat mais amul benn prestataire bu nekk ci entreprise te mu am contrat amul benn prestataire bu nga xamante ne am na contrat ba pare am embauchement amul ah fii boo ku fi feebar rek entreprise bu la du la jël en charge comprendre lépp li nga xamante yow mu ngi fii ñun ñoo koy defar suñu bopp le minimum en nekk le respect amuñu respect si ñoom amuñu respect si keneen surtout le président gare routière moo agressé suñu chauffeur bii moom la agressé dëmb comprendre kii la agressé dëmb loolu ñun def ñu métti parce que kii kii dafa demoon gaara xam nga ñun lépp gare routière lañ koy def gare routière lañ koy def léegi daf doon jël essence les complications ci jële essence la ñun ñëpp dañ koy dund boo demee pour jël essence ñu ne essence 10 litres pour 10 jours loolu benn oto ñun duñu ko naan oto yi ñoo koy naan mais boo demee pour sol essence da ngay am complication comprendre boo demee sa pneu day am problème ñu lay forcer des fois pour nga daw dawee noonu benn oto amu fi pneu de secours te loolu dañ dañ ko tere ah amul amul dara li nga xamante ne lépp li ñu ci oto ñun ñoo koy liggéeyandil dégg ma loolu du suñu responsabilité xam nga suñu responsabilité dañoo jox caabi comprendre boo wàccee boo wàccee kii entreprise dafa amul chauffeur parce que dañu lay wax boo wàccee si keneen mooy ñëw boo wàccee tey si suba keneen moo jël oto bi donc ñun ñu nga xamante dañu yàgg ci entreprise yàgg nañ ci entreprise amul benn ligne bi nga xamante ne lii ñuy ñu ñuy amee xaalis yëpp chauffeur ñoo ko ubbi ay Bambilor ay Sangalkam ay Diamniadio ay enseignant ay Zac Mbao ay ainsi de suite comprendre mais am na leneen encore dañuy sanctionné chauffeur li nga xamante ne doo xam lan moo tax ñu lay sanctionné nam na ñaay cas da ngay xeesi rek ñu leen waar yow demal xaar yow damal xaar comprendre parce que ñun am nañ liste bi nga xamante ne am na ñu nga xamante dañu posé ay question ay question yi am na ku ne lu tax ñu ñu lay démarré loo kii cinq heures du matin ba vingt une heures comprendre am na chauffeur bu nga xamante dafa ne lu tax ngay liggéey cinquante mille francs par jour cinquante mille francs par jour ñu lay fay deux mille par jour xam nga loolu rek doy na waaw loolu la am pour pour réclamation nañu xool suñu situation salaire bi parce que amul benn entreprise bu fay deux mille deux cent cinquante ci Sénégal parce que état organigramme état waxoon nañu au moins quatre vingt mille francs kat loolu la war am buy liggéey ci entreprise au moins quatre vingt mille francs mais ñun ñu ngi fay. bi GIE la GIE la ñu ne ko mais GIE xaar yàlla lañ ko waxee. patron patron am na mais problème essentiel problème essentiel à nekk monsieur Amady Sy mooy patron bi waaw moom moo agressé boy bi moo agressé boy bi mooy président gare waaw loolu la. ñu ngi lay fay waaw loolu nag moo jaaxal ñu bari parce que loolu moo jaaxal ñëpp tamit parce que ñun dañuy liggéey fii mën naa ne fii def nañ fi depuis quatre ans et quelques am benn problème. waaye ëmma jëmma ji nii muy Amadou Sy ba mu ñëwee fii bañ entreprise ba léegi fi nii du jàmm du salaam sama réew la noot ñun ñëpp la noot dañoo noot de waaw parce que man mii xool ma moom ni ma toll nga may boole juróomi ponkal samay pièces ak lépp lañ yóbbu amul lu ñu bàyyi si man sama lépp lépp lépp kay jeexal nay wax ah juróomi nit sama caabi oto sama bàyyiwul dara si man. non gaañu ma ah waaye bu ma xëccoon ak ñoom parce que mën naa gën a ñaaw wala ma gën a mën a métti parce que juróomi nit yoo xamante la léegi ñu ëpp ñii ah ay nermi ah ñii jaar ni ñii jaar ni moom Omar Cissé boobu moom moom moom personne moo jël sama caméra moo ko xëcc moom moom même personne moom moom waaw moom ñeent lañu ak moom muy juróom moom mooy président gaaru Thiès bi yëpp bi ma déparé wëri di seen essence daf ma oo téléphone dafa dafa dafa oo ay nitam nañu kaay bi mu ñëwee Papa Gueye la njëkk dal nag ana Ada Aidara Papa Gueye nag ah ko mu topp sama ginnaaw dama ne rek ñu ëgsi ñii jaar bunta bi ñii jaar bunta bi na ma kirtim fi ma toog si cousin oto bi man moo ma jaaxal defuma ko waxuma ko defuma ko waxuma ko machine lañ ma jox ñun machine lañ lay jox amul daw li gën li verse li diggal daw lii machine lañ lay jox li ngi nekk si machine moom ngay verse ticket la li nekk ticket moom machine moom ngay verse yaa ngi dégg contrôle la ñuy tegal na la carrément contrôle bi ni la waaye ñun li ñuy liggéey fii métti na métti goo xamante ne amul app amul genn ñun amuñu salaire fii boo bëggee dégg-dëgg ah boo bëggee dégg-dëgg gars yi dañuy wax na ay salaire ay salaire fii amul salaire boo liggéey ñu fay la boo liggéey duñu la fay boo xëyee fay nañ la boo xëyul fayuñu la boo feebaree lijjantuñu la boo feebarul lijjantuñu la yow daal saa seetaan bu ñu xëyee gis la gis nañ la buñ la gisul gisuñu lo mën ngaa feebar mën ngaa xëy feebar une semaine kenn o la téléphone kenn du la lijjanti métti na trop métti na trop salaamaaleykum maa ngi présenté wu man la Modou Ngom euh, maay la vice président des chauffeurs ndax suñu président nekk fi instant bi nii ak moment bi ak situation bu am dafa dem police pour régler parce que dañoo récupérer toutes les cartes grises voitures yu taxaw fii dañ ko récupérer yóbbu ko police léegi moom ñoom ñu police y a des éléments yoo xam fi ñoom ñu police am na léegi man maa fi man maa fi des parce que ñu ngi xooxatal sa naan ñu ngi oo ay huissier woo musoon na fi am ñu andi fi police andi fi gendarmerie mais ñoom bi ñu ñëwee ñu taxaw ñu xam ne dara léewuñu ak ñoom lu dul parole parce que fii on travaille on est des journaliers on n'est pas des des des gens embauchés amuñu contrat y a rien lu lié ñu ak ñoom ñun journalier la ñuy liggéey suñu permis la ñuy yotti daal suñu doole quand tu viens soo liggéeyee dix jours on te paye dix jours boo feebaree seen yoon nekk su oto bi nga yor yow soo feebaree keneen lañ koy jox boo defee accident ñu jàppale yóbbu la police tëj la ñoom duñ la lijjanti say mbokk lay lijjanti oto bi day dem daw keneen leen koy jox amari mi amari nag bi tax ñu taxaw fii tey nangul nan ko wul nan ko dama koy wax trois fois ñëpp di ko dégg nangul nan ko liñ ko fal na nangul nan ko moom mooy suñu président exploitation kon tey suñu kilifa la Ouzin Kébé mooy président rétab de toutes les GIE Ouzin moo xam ne moo leen ko moo leen coiffé mais amari bi nga xamante ne moo yor exploitation ñun ak moom dañu egg foo xamante si état boo xamante ne galaa baxan di rot parce que dëkk bi dafa am yoon dëkk bi dëkku yoon la ñoom nekkoon nañ fi ñu ne ñoom ñoo ànd pendant dix ans leen yàlla def ñu nekk président nekkoon nañ fi nekk nekkuñu woon dara ñu ñu nekk ay chauffeur di daw ñu soxla ñu ñu soxla ñu di ñu di ñu di ñu ñaan di wut gare routière ñu ànd ak ñoom jàppale leen voté leen ba tey ñu nekk président tey ki nekk suñu président moom Amady moo ko remplacé moom moo ñëw nekk président mais. dafa am benn combat bu am beneen combat bu am si société bi je le cite dama koy cité ba mu leer combat bi am si société bi diggante Amary la ak Moustapha parce que amoon na keneen ku yor suñu président exploitation muy Tafa moom il a fait ses ses trucs ba jëlee ko fi li nga fal nag nangul nañ ko ko mais lan la ñu mënul nangu mooy déjà les conditions du travail c'est pas bien ndax on travaille pas l'heure parce que dañuy toog on travaille dix-sept heures de temps on nous paye 2250. On est des journaliers. Ku xëy xayrun boo xëyulee xayrun 2250 yi ñuy fay loolu dénkaane la mooy dañ boo ko liggéeyee ñu fay la ko boo ko liggéeyal kenn du ko fay kon loolu dénkaane la dénkaane boobu lañ jël ñoom tuddee ko salaire te ça loolu du salaire loolu journalier la mooy li ngay am pointage dañuy liggéey boo liggéeyee boo liggéeyee ba am. dix jours ou bien quinze jours parce que liggéey bi ñuy liggéey dafa métti képp kuy liggéey dix-sept heures de temps code du travail nangu ko on tra man dama hémorroïde fii amul chauffeur bu fi taxaw te doon naan garabu hémorroïde ñun ñëpp a feebar parce que tey état dafa taxaw ne mi ngi mi ngi mi ngi teg politique boo benn jeune jël gaal mais avec les conditions la moo tax duñ dem jël gaal avec les conditions dañoo am jabar am ay doom am ay njaboot on ñu paye deux fan la am fan ama non jooy nañ ko ba sonn parce que ñoom ñu si kilifa toog na ñoom avant ñuy def arrêt bi avant ñuy def arrêt bi dans la semaine dañuy nax le président pile de trois à quatre fois boo xamante ne dañuy wàcc à vingt et une heures toog wax moom di réunion ba une heure du matin on se lève à cinq heures du matin pour reprendre la job kon tay jii ñun bañu ñu liggéey mais yëfu yabaate yi ñuy def jàpp ay nit singale ay nit ñëw am seen guerre froide sippique ay chauffeur di door ay chauffeur kii moo si gën a ndaw ah am na chauffeur boo xam ne mi ngi fii taxaw si mbooloo bi suñu chauffeur ñaari chauffeur ñoo jote ndax ñoom seen guerre bañ bañu am si yoon bañ jàpp benn chauffeur bi arrêté ko ay nitam dem di nga taxaw tribunal ñoom ñëpp la wàcc si oto bi dàq leen ñoom ñëpp kenn liggéeyatul chauffeur boo xamante ne dafa jóge si dafa dawal ba otom paan mu bàyyi mu mu dem jalaat beneen verre blanc mais si moom ki muy geeral la la chauffeur boobu dem mu ñëw mu ne ko dootoo dawal si société bi mais Amady mooy kan Amady ndax daf ñu moom na dafa jox suñu ko dépense Amady état joxu ko poste bi dafa dem élection gagné la gare routière safari non safari ñoo ko fal mu nekk le président des gares routières mais exploitation bi banque moo ko ko jox déglu leen déglu leen exploitation bi banque moo ko ko jox c'est pas à nous de le donner joxuñu ko banque bi moo ko jox mais ñun nangul nañ ko kilifteem nangul nañ ne suñu njiit la. mais nag day am respect lépp gare routière la ko yóbbu fa la ñuy defaree pot fa la ñuy jëlee essence ah oto bu paan fa ngay dem te ñoom du ñu xëy heure ñun dañuy xëy 5 heures du matin suñu oto mu daw sans essence day tabi këram ba 11 heures mi ngi nii di ma dégg moo yor lee mi ngi nee yor oto bee ak police am voilà. ce matin on est là. benn mandat ngay am ñun nag c'est juste len lañ lan moo tax tey ñu xay taxawal oto yëpp parce que tey lii bu sañoon du suñu coobare parce que ñun liggéey moo ñu tax a jóg liggéey lañ xam on travaille dur on travaille dur parce que liggéey bi dan dañ kaa moderniser ut ay machine jox nu transport ba sa machine ame nga xam ne chauffeur amatul dara machine bi chaque jour dina liggéey quarante à cinquante mille à soixante mille on ñu pay deux mille avec le primes a na nag ay primes de panier ku am quarante mille am 4000 francs ku am 60000 am mil francs loolu lañ ñuy message may lancé message may lancé je le lance avec la le, mon excellence monsieur le président Diomaye Diakhar fay ak le ministre di transport moom nga xam mooy suñu tutelle di ko wax ne ñu fexe waa code du travail ñu def seen job waa code du travail bu ñu doon job tey ñun du nekk ci condition bii ñu nekk am na ñoo xam ne fii lañ nekkoon doon fi liggéey ba quatre oto amee tey ñi ngi seen kër mënatuñ dem na feebar dab na leen mënatuñ génn seen kër amatuñu jabo dépasse bu ñu jox seen jaboot préparé wu ñu leen amuñu retraite du ñu toog fii ba tudd leen wala du ñu xëy ba yónnee leen dara ñooñu gaare nan sen njaboot torox na léegi ñun dañuy continuer si condition boobu ba torox duñ ko def ñun nag bii nii ñoom lu ñu si bañu ñun bañ ñu ko si ñoom ñu ngi fay di réunion avec la banque ñu ngi toog di leen xaar ñoom bu ñu paree wooñu ñu teg lépp si table les conditions changent on, on reprend si les conditions ne changent on ne travaille pas voilà tey am nañ méttit am na méttitu xol parce que tey li ñu def nii ñun suñ neexuñu neexul client parce que parce que suñu client suñuy roi te dafa am loo xamante ne sax fan yii dañ koy xewle dañoo amoon benn liggéeykat bu nekkoon suñu biir nekk suñu contrôle kat bu jigéen am fi jëkkër fii si biir société bi yàlla wàññi ko mais bi ko yàlla wàññee clients yi sax ñoo ñooñu gën a taxaw ko suñuy suñuy titel suñuy patron clients yi taxaw bu ñu taxaw ñoom taxawuñu ñu ñu ko que ñun xaaruñu dara su ñoom xam lu ñuy xaar su ñoom respect kon tey ñu ngi masaw client bépp client boo xamante ni da naan yéeg vert blanc ñu ngi lay masaw ah di la wax masa coono ñu ngi koy méttiwul nag mais dafa nekk loo xamante ni tey buñ ko arrêté wul bakkan mun na fi rot parce que démb ba ñu agressé kii jël sach jël jël xaalis sama jël caméra jël lépp caay bi otom ñun nañ taal oto gis nga mbooloo bi taxaw barke Rasulullah bu ne taal leen ñëpp taal bu ne gaaru teen ñëpp dem gaaru teen bu leen fa fekkee dañ leen di buum mais nag on est des responsables moo tax dañuy alerter te nag alerter loolu lañ nangu ñëwuñu pour def lu ñaaw dañuy alerter la prochaine fois bu si buñ si jógulee leen lu xew ñoom nañ endossé seen responsabilité voilà voilà moo tax gars yi jël ko parce que tey dem am nañu am nañu fipp woon am nañu fipp woon pour dem gaaru routière dama leen wax déet dañ leen wax déet bu kenn dem gaaru ceeb parce que tooñ baaxul ñu dem li ñu def nii tamit dem nañ le président na leer dem nañ toogal le président avertir ko ne ko demee yaa arrêté dañuy taxaw bu ñu taxawee nag ça dépend de vous bu ñu taxawee boo leen teree réagir on reprend boo leen réagirul on continue tey moom c' est mort si si ça se passe comme ça deme c' more mort après demain c' est mort ah waaw lii dañ koy parce que bëgguñu lu ñaaw am fi ñu ngi leen di jégalu ñu ngi jégalu ñëpp képp ku dëkk tënkee jéeg si Verbena tamit encore une fois ñu ngi leen di sant ñu ngi jégalu mais ñu ngi leen ñaan tamit ngeen comprendre ñu xam ne li ñuy xeex nii dañ koy xeex ndax suñu njaboot li ñuy xeex dañ koy xeex ndax suñu santé voilà li ñuy xeex dañ koy xeex pour dëkk parce que bëggatuñu benn jeune di jël gaal di si dugg di faatu sa njaboot di perdre kon nag fii lañ war a toog di jariñu Sénégal bi lañ war a toog di liggéey di jariñu jërëjëf